jënd ci 37 millions prix bi yeggul foofu sa taux feex feeñ si wax prix bi waaye wóor na ma ni yow xam nga ndax on a eu droit à une réduction boo xamante ne loolu ku dul Serigne Touba Mbuno ndax boobu dogg nañu ma ni ko ma ni ko sooy dem ma ni ko mënta ñàkk ñi dem ñu tàggu dëgg-dëgg man ne ko tàggu bi yëpp ma ne ko léegi su jublu ma ne ko mooy na la ñaanal looy demee affaire musuñoo gis ci àdduna kuy dem ne maa ngi lay jox nangam waaye naa lay jox nangam ba mu mat ñun am mu am garantie Serigne Touba seere na jéem maa wane ay do do ay ndox ndox. waaye daal Serigne Bethio lu ñuy sante mooy ndimbal li ñu gis ba bëgg nañ ko. nga boole ma sa jàmbaay yii. xalaatuñu xalaatuñu ñii xaj na oh ñii ñoo ñàkk xalaat. université yi nii ndox kii fa rek mu ñëw. dañoo dem Bordeaux may génn mu ne ma ah, tey xam naa secret. mënuma Serigne Béthio ma ko wax ma ne ko universel looy wax nii mun ma dama lay wax rek yaa ngi koy fàttaliku ba ñuy dem di jël koppar yu bëri yi ni war koo transféré Dakar Serigne Béthio wàllu si ndégam ne la xam nga la mooy secret Idriss Samb nga ne ko coono mu mu lu mbooloom duñ koo bëgg. waaw man bëgg maa ñàkk te dama te bëgg ndax xam naa ni lii nit bëgg ci man du leneen lu lu mu def ci man. ndax man damaa amul te damaa bëgg ta am sax nag man jaam laa te bëgguma wees sama condition jaam nee na bëgg tagg bu bëri baa ragal ku lay ŋaññi soo defee mën na laa jural doxinum naa fekk man waaw góor nii wane moo ma a jiitu ndam kii mënu si dara ma saa su ne na ngay dëkkee ndam dafa ànd ak yow am ndam. waaye di jël suñu ndam di lépp jébbalaat la gën a laxasaayuwaat gën a doonaat say jàmm gën a doonaat say namadal say amir bu dee dëgg ak kaw du ma xeebante du ma waxante waaye ñu ngi ci lépp du ma ko ubbi nag aw ma sañ-sañ waaye daal di wér toog nañ benn instant ba di xalaat. ne lii day ndamu màggal beeg ci liggéey bii mu nekk ak ma ni dama ne dañu joxe lépp. jëfati seen bés. tey. waaw. tey. ci sa bëggoon rek def présentation bu ndaw ñu koy tuub ci jëf ji wax ci Serigne Touba muy mel ko jëruñ jàppee waaw barki Serigne Touba maanaam ay aar dikkee barki Serigne Touba mu ne booba ak léegi ñoo ngi siyaare ku tedd ci waaye man li ñuy siyaare dama koo xeeb waaw man li ma bëgg mooy bu ñuy jox sang bu tedd bi li gën ci li ñu mën misaal ci xeer waaw ay jamaa lay doon waaw donte mënuñu am lu toll ni dayoo waaye ay jamaa lay doon waa daara yëpp àndee ko nangu barki Serigne Touba ñu ne ko jëwri ñun daal loo wax ñu ànd nañ ci waaw barki Serigne Touba mënu ma nag jamaa laa bëgg mënu ma yow xoolal ma tàmbalee xool ci jamaa yi xeetu jamaa yi ci xool rudi émeraude jamaa blanc mu ne ko ah day mel ni day jamaa daa bari te daa wute waaw rubis am na émeraude am na waaye jamaa jamaa blanc am na mun ma loolu wutalee ma ne ko jamaa bi la gën a weex ëpp la éclat moo gën a raar moo gën a cher mu ne loolu laa yéene sama sëriñ ñu dajale lim mu ne ma ma dem ba foofu ma ne ko ah jëriñ day mel ni liñ jot a dajale day mel ni ak émeraude jàppandi na waaw ndax daf ma ne ensemble la bëgg waaw ndax ku tedd ki jox patt di bàyyi meneen ni wala di jox collier di bàyyi jaaru mu ne ma ensemble laa bëgg moom laa tàmbalee joxe moom laay wéy di joxe moom laay sax di joxe ah jëwriñ waaw jamaa am na jamaa am na jamaa am na ndax xeeti jamaa bi ñu bëgg invisible setting diamond ring waaw bu ma koy misaal bu ma koy ci gàttal jamanteer boo gis boobu lay wër ndax day jamaa bi gën a raar bi gën a jafe bu ñëwee boo wax ak waaj man maa ngi wax ak moom waaye tàbb naa ci àll te yëguma ko mi ngi mën jamaa bi pour kan la sa soxnaa ko moom wala sa yaay wala mu déedéet kii sunu sëriñ la waaw mu ne sunu guide spirituel moo ko moom ah, ma génne nataal bi won ko ndeka waa ji la waa ji gën a daanu ab turk la barki sëriñ Tuubaa mun ma wewoon mu wax ba pare mun ma jamaa lii lay jar ma ne ko man daa man ma jàpp xam li ma xam rek ndax man li tax ma gën a rafet njor ba ma yegsee waaye daf maa teeroo café barke Sëriñ Tuubaa bi ma teeroo café ndax dugg naa fu ne ci bisu Thiey ku ma ñëw boo wax man waaw wax soof kay xaw wax man ma xam ne fii du foofu bu ma ñëwee waaye tegal ma café tegal ma xeetu ndaamaraas yooyu xeetu gerte yooyu ma xam ne fii dina baax barke Sëriñ Tuubaa ñu toog ma waxtaan ak waa ji waaw sang bi ñu teg ko ci seen barke rek ngir misaal ni da gën a gaaw gën a neex gën a taw féex waaw ndax loolu buñ ci bëggoon benn pàcc duñ ko ci ñu yóbboon. waaye jëwriñ ñëw jëwriñ ñëw ku la xool man xam naa dama dof ci dëkk bi laa dëkk. je connais système bi kii di wax sànq da ngay comprendre xam nañu yëf yombul waaye na nga ko lijjantee ba mu yegg si loolu boo amul ndimbal amoo dogu du demee nii da am dogu da ko da nga ko da cee catégoriser wu moom sañu woon di dem di wuti te du ko fi indi ndax ni nga waxee moom par par force day am résultat te kat yëfi luxus de ku bëgg ci sëriñ bi da ngay ci sëriñ bi sëriñ bi jox la nga jëf ko soxna si ñun sëriñ bi moo ñu teral li ñuy xam lépp sëriñ bi la fépp moo nu fa jaarale. faw nuy sant barki sëriñ Saliou Mbacke man damaa sant ci fekkee gi ma fekkee lii Pastef rek a jar a fekkee Pastef day yokk Pastef fii tey ku fu ñëw sa Pastef yokku na loo bëggoon liggéeyal sëriñ Béthio yokkuwaat na ku fi ñëw yokk man sëñ Béthio moo ma dimbali ma teel a xàmmee yéen njabootam gu tedd gii barki sëriñ Saliou Mbacke kon du ma wax lu kii sëñ Béthio xam naa li mu bëgg sama xol bi boo ko daggee sëñ Béthio nga ci fekk te xam naa li sëñ Béthio bëgg defal ko rek kanu war ànd ak yën rek barki Sëriñ Saliou Mbacke soxna maa ne jërëjëf yow keroog ba sëñ Béthio di wax li mu lay wax maa ngi toog soxna Aida yéen lu war a def ci sëñ Béthio di ko def loolu loolu soyons certain que dina am sëñ Béthio lu wax day lu wax day lu boo vingt vingt et quelques années ci ren. lu mu mos a wax ñu teg suñu bët. man moom sëñ Ba naan di bari njariñ boobu man étudiant buy jàng nga xool ko ne ko di nga bari njariñ man ndeket damaa yaakaaroon ne njariñ li ci koppar rek la yem. ndeket damaa gàtt xel dem naa ba xam ne ndeket njariñ li weesu na kopparu adduna yi sëñ Ba man ba may wax loolu xaw li muy wax. biñ ne tey laa koy doo ko xam am na sax lu ma ci xam waaye xaw ma lépp. soxna si ñun sant gi ñuy sant sëriñ bi du dakk sëñ Béthio ñu moom moom gib ñu moom nag day gën wér faw nuy ñëw mënuñoo dem fareen fii la ñuy ñëw fii rek la ñëw di sant parce que sëriñ Saliou Mbacké dama tuut naa man sëñ Béthio wàcc Bordeaux fekk samay compte nekk zéro bi sëñ Béthio wàcc Bordeaux kont zéro mooy sëñ Béthio wàcc débloqué lépp ñu tuur ma quatre-vingt mille euros ci ñaari fan ma xam ne moo ko fi indaale ma ne ko cuur loo bëgg def mu ne moo lii lay dara li ma doo too yow doo too jeexal lii lay dara ak sëriñ Saliou Mbacké ñun war nañoo ragal ñàkk du ñu ñàkk mukk te waxuma alalu àdduna yi ñun li ñu am moo gën lii li ñu am a gën lii parce que Serigne Saliou Mbacké li am du moromu lii soxna man ne damaa fas yéene takkaat sama ndigg duggaat ci dëkk bi dama ne woon sax dama lay tàggu si loolu ma fi indi damaa bëgg a woote cant def tournée dugg ci dëkk bi ndax liggéeyal Serigne Béthio bi may dégg waaw ah donc dama doon tàggoo ci waaye fii laa la koy waxee dama damay woote lundi damay woote cant ku bëgg ñu waxtaani sëriñ bi naa la fa fekk ndax man dama dootul taxaw du ma sol dàlli weñ di taxaw du ma ko def ndax ki sëriñ Saliou Mbacké loolu rek laa doon ñaan si waaye lii ma dajeel jëwriñ ji ah. barki Serigne Sall Mbacke lii Pastef la lii soññ nañu lii dëgg la ñun jaru sax ñuy waat man tuub naa waat gi sax lii mooy dëgg jërëjëf sëñ bi Sohna Ayda, Sohna Ayda